loo may wax ci diggante xoyantaan Baye Mandione voilà Baye Mandione je le connais un peu gis naa ko xoyataan pas tellement ay quelques combats am laa xooloon mais mooy li ma wax sànq xam nga Covid bi daf fi jaar te mbëri gëj nañ leen gis xamuñ seen état de physique ak seen état de forme fu mu toll te ñoom ñaar xaw nañ neexoo tuuti doole et ma joon c'est un der à cuire la du du jeexal loolu atome la bu fekkente ne mi ngi ci jour am mu concentré wu expérience bi mu am xoyataan amu ko. bëri bi mu am xoytaan amu ko donc atom ak chance am mooy ñi koy conseil mu dal mu dal bu ñëw ubbi xeex su amee bunt mu jàpp bëri parce que boo gisee ay déclaration yu ci bëri day jàpp ne moo mën xoyantaan. moo mën xoyantaan et tu sens que il a la rage de vaincre et dafa mel ni am benn genre rancune bu mu war a indi. Euh, revanche xaw ma vengeance da bëgg indi. li xewoon Gambie loolu dafa nekk ci moom ba léegi et bu bëggee am ndam ci combat bi du demee loolu. gisoo ne Baye Mandione nekk na mbër boo xamante ni chaque chaque année mu am combat ak ay mbër yu muy bëre. Mhm. est-ce que gisoo ne mu gënee calme gën a serein. fukk bi mu wàññi ko tuuti gaynde gi delluwaat foofu nekk. ma ñoon mbër la de mbër bu mag la mbër kaamil la mais c'est-à-dire ay tolof tolof ni mu koy waxee. tolof tolofu làmb rek moo jàpp bàyyi ma ñoon mais mbër yu bari ñu ngi fi actuellement di reñe bi bàyyi ma ñoon di taxaw ci digg ndëndam reñewuñu mais ay tolof tolof ay jaar jaar moo ko jàpp ba mm-hmm. ak làmb nu mu demee mm-hmm. mu mel nii mais man bu ma ko jege woon di ko conseil wala mu ngi may seetaan di ma dégg dama koy wax làmbam na si ànd ak calme ak sérénité mm-hmm. concentration bu mat kese lañ doon def ñu indil ñu bëri dóor bëreel soo amee dóor nga dóor soo amee buntu nga jeexal làmb ji mais bul ne par force damay xeex damay venger wu revanche la vengeance laa indi dama damay bëri ak rancune kii foog mu dóor ko mu daanu mbër buy def loolu yàlla dalay nattu di nga ëpp doole mbër mi sax yàlla nattu la ci ca force boobu mu doon sa faiblesse après euh, non c'est comme on dit dans ta richesse dans ta pauvreté vita ta richesse am na ñoo xam ne aussi ci seen recherche ñu ngi dund pauvre extrême pauvreté y a des gens qui sont hyper riches mais pauvreté la ñuy dund. Euh, il faut faut apprendre. à avoir ça pour avoir ça. exactement am na ñoo xam ne seen pauvreté boobu extrême pauvreté bi ngay xalaat richesse dañ ciy dund. c'est important ça tu le convertis en sport da ngay xam ne ci biir combat bi da ngay ànd ak da ngay ànd ak calme da ngay ànd ak sérénité def li nga xamante ne si tu as l'opportunité dóor nga am nga bunt. nga dem soo amul bunt nga taxaw su waa ji déséquilibré nga utiliser force mbër yu bari ñu ngi leen di daan ci seen erreur boo xam ne ci seen doole lañ leen daanee te pourtant gën nga pare mbër bi bon xoyataan aussi mu ngi def ay preuve am c'est le roi des arènes en Gambie comme entre guillemets donc moom it buy ñëw du bàyyeeku te mi ngi doon continuer entraîner te aussi xale la moo gën a féete ndaw te Gambie boo xoolee seen sport ci lépp lu jëm ci sport de bodybuilding sport de combat may nuyee Wally famille yi aussi de passage am fii ci tournoi zone de Afrique bi ñu amoon fii à la place de la nation ñoom Hari Yanga ñoom Cissé Alaaji Cissé et consort ak toute l' équipe des des des des di leen di leen félicité mais ñoom it dañuy nekk ci sport dynamique bu doy waar boo xam ne bàyyiwuñu seen bopp aussi bàyyi ma ñoon na concentré wu rek. xeex bi dina arrangé pas tellement moo gën a bàyyi ma ñoon na a ñoom bàyyi ma ñoon mën a xeex te xeexu xoyataan nekkul xeexu box bu bënn. bàyyi ma ñoon bu lucidé bu fekkee dafay xaar bu dóoree mu remise bu defee action mu def réaction mën na am dara. mën na ko xaar bàyyi ma day xaaram du yàgg nag bàyyi ma ñoon moom ñun ñoo ñoo bokk ko <laughs> du taxaw lu yàgg du xaar parce que bu na daan combat bi na jeex. Ah, damay bëri rek mu jiitu ah. mooy concentration bi ah. dem day fekk bu yoon am dem amee. bul dem te mënoo dem. Mm-hmm. bëgg a dem taxutu mën a dem. Mm-hmm. da ngay dem soo waree dem. da ngay a xam lan nga fa war a dem fekk ji.